الله من كل كريم أكرم من آمه قلد لهم تكرما نانا بسبي كيف كفي نورك نانا فصلي ما نمل نداو boo xamante ne da nga doon bëre ñu daanaka saako fëriñ nga dugg daanu ma. boo ko mënee ñun soo làmb ñi sa jëmm ku doon bëri ndax da nga yeex taal foo mën a dugg ba ñëw Tuuba dugg ci xew sëñ Bamba yi. nee na loolu nag moo tax ñun lii nga xamante ni nee na sunu way jur yaa na ko tedd ci Cheikh Ahmadou Bamba bis bii lu ci tey dara te kat lépp lu ci sabab rek mu ñëw man day nee na ñoom daal duñ ci wàññi dara ba tàmbali bu demee ba ca kaw lépp jigéen la am nañ jaww. loolu lépp loo xam ne nit wax na ko ne doo ko def rek surtout Serigne Bamba bi loolu laa ko def. nee na ñoom li mu leen tëral mooy leen gën a foog nee na li mu leen tëkkoo koo mën a doon rek ca tëkkuleen ci mbir ñoom Serigne Touba day leen ñoom Serigne Touba daawul jëm jëm rek la tëkkoo fii dund ko nee na fii dund dund. jébbalu ci sëñ Touba nee sëñ Touba du ko ni ni xeet nee balaa samul baari sini balaa samul yu baari sini mu takk man oh la ilaha illallah nee ku yóbboo man yaa ngi leen toog yàlla tey ku leen toog yàlla da nga daal jël bu rëy nii la doon demee nee na nga sant nee na sax xam ni nee li mu woote ak koo jar jar na joxe Ndakaaru ba Touba nee na ndax tamit ku ñëw àdduna ku ne boo soobee dem àjjana ay àjjana nee na yàlla jox na ko de. nee na boo li yàlla jox Sëriñ Touba neex na la. moom da xamul ci yow dara lii da loo nee na sant yàlla bu baax te sant yàlla bu baax te xam ni ku tànn ki sax Ahmadu Bamba ñun ñëpp ko war a sant ndax liggéey na ñëpp jëriñ na ñëpp kon nanu sant yàlla waaye ba bëri ya fekk ko nee na moom mii day dem ne ko pare ba nga xamante ni garab kan ku téye woon ak i mbuum fukki office yoo xamante ne kenn ku ne jàppkat nga ak ñett lu doxoon ndigal kenn ku ne dàq ndigal ñoom ñëpp nee na balaa nga tabax woon mën a fetal kenn ku ne ah kenn ku ne daal dem ba jëlee daal askan bi daal daal ñu fële. nee na ko jëmale ci ñun nii loolu rek lay dal lay daw lay daw nee na sëñ bi tolloo ndax ma waxoon ni au murid yëpp boppam saa ko lay benn yoon ci yenn waxtu ñu dugaloo leen ñëpp ci benn bàmmeel nee na ñëpp kenn ku ne dana nangu sa loxo mu tedd moom nee na loolu dafa ne naan nangam ki nangam ki nangam loolu mën a jëfee nee na kon nag na ñëpp noppandi nii du ko ci ko yàlla jox jàpp sa jàpp lu jël rek waaye bu jëm nag ñun nii mu defal di digal ñu mu jëm mukk mu bàyyi suñu digal bii kenn du mu tax lu wax nee na seen wuti ndigalu kenn nag yor kenn séeréer nee na sëriñ bi rek la ciy déglu ndax ndigal dànd la te sëriñ Tuubaa joxoon na ko ba nag nee na lii rek la wax nee na yow na nu yàlla doole dimbali ak bu ne ko fekkee nu ñëw nag def ci ñëw ngir ko su yàlla nee na ni mu ko na ko ndax aw yi nee na ñu ngi sant ñëpp nee na ñu ngi sant daayira yëpp daayira nag sëriñ Fallou dafa waxoon ni moo ko sos ndax li tax ko sos ko ak taalibe daa war a defal ab sëriñam àllarba te taalibe yëpp li jëpp lépp baytunu nee na mu def ko def ay daayira nee na mu def ko ay daayira waaye affaire bi la tudd àllarba nag wóorul sa sëriñ fa juróom-ñaari fan ñi ngay am dañ lay seeral loxo yu dëgg teew rek dañ lay seeral li li nga wax dëgg teew sa sunu borom dafa wax ni yow ma yan fa wu saadu xiina sa suuf bu déedéet koo xam li nga waxoon du dëgg nee na lee boole nga ñëw sànni ñëwoon dëgg yàlla dajale ñoo jël njëriñ ngay wax dëgg dëggal te bàyyi caaxaan te xam ne kon ne ku ne sa gaynde bopp nga boo booyee sa bopp gaynde lekk la te boo gaynde lekkee ñu ñàkk la dégg leen loolu de kenn ku ne sa bëyu bopp nga boo booyee sa bopp gaynde lekk la te boo gaynde lekkee ñu ñàkk la kon nag kii nga gën a sa bopp jàmm day nekk ci lu baax say yéene lu baax say def lu baax te sax si faaw kenn mënu laa ci am lu baax nee ci bind mbindeef yi lottul ci dara te wax na ni mbindeef mu ne maa ko bind waaye bindee ma ko lu dul mu jaaw ma وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون kon gën ko mu tëdd it nañ ko jéem ku toll ne yàlla bind la sàkk say jër andi la fi dina wërsëgal boo nee nangam lii laa bëgg boo ko mënoon na ko waxee jéem sa kam kàttan te xam ne yàlla ah dara teewal ñëpp kenn ku ne mu laaj la de. tey dañu wete ñëpp te kenn ku ne kenn ku ne la jàkkaarloog moom nee na ah bam ne yéen ñii wuusi leen ma ndax nee sama sabaru néew na waaw néewoon Balla mu ne ah lu tax nga ñëw àdduna oh. oh. nee na kenn ku ne xam nga ne bindoo suuf kenn ku ne yàlla la bind. te kat bu ko sooboon bu jëlee sama benn cër bu ko téye bala ngaa ba ci jàmm te bu laa bàyyi rek te bu ko bàyyiwul la am ci àdduna man au mélange loxo bu ngi téye ba yàlla bàyyi te bàyyi la rek cër yëpp nga def loo neex kon nag nga fàttaliku yàlla. dafa teg suñu borom fàttaliku Serigne Touba mi nga xam ne daa jógoon ànd ak noonam juróom-ñaari at ak juróom-ñetti weer ngir bi def yëpp nee na sababu xëybati an allah arada an allah minhu jaaha na doxul rek ci ngir mu nee na Cheikh Mate Diop wax a wax ni sëriñ bi kenn képp la kenn ko boole ci mbooloo bi kenn ku limaale kenn ku wutal am jaay tam nee na imaamu daal fardu la si laayum doxoo wala yu sànne wasoo yu ñu kama yu sànne bu dul moom man ngaa doon loolu la bu tapajoli sëñ bi tapajoli rek la te suñ ko jox te nee na képp koo xam ni man ngay wóor fu mu tuddee nga ne amul morom dégg nga li mu wax sëñ ma jox baax du fexe ku tedd Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bi dandi ko képp koo xamante ni bu ne Cheikh Ahmadou Bamba nga doon foofu ne amul morom yaay mujj di nga nekkal te kenn doon jot njëriñ yàlla da rabbi yàlla ñu teel musul yàlla ñu teel musul na Adja Touré mi ak magam nee na loolu di ko nag di leen delloo cant ñëpp ndax seen waajur bu baax ba ma fii ci kër gi doon du liggéeyal yàlla ak seen baax def joo xam ni seere nañ ko nee na dama dem nag nee na ñëpp daana fa dem waaye yàlla na la fa yóbbu jëf ju mel ni jëfam ndax moom day lu mu jëf rek sëriñ bopp tax nee na loolu da yàlla ko yàlla na bu wér ndax nee daa am du soxna ma jooju ni ko ne ko man damaa bëggoon ma amee ndigal kër gi war naa am seetal na bu mag seetal na ku tedd ki laa ko tuddee Cheikh Ahmad Bamba nee na ma ko moom it man waaw ah, waaw loolu koy ndigal la nee na lu mat ay nangam at a ngi nii kër yëpp ci ndox moomee te la ñuy defee lépp te du jeex mukk nee na loolu nee na pay suñu borom la nee na pay suñu borom la nee na yàlla day boo ko xëyee ne mu gontal la neen Serigne Touba ku ko liggéeyal bala ngaa génn àdduna ña fekkoon loole sa liggéey boo dee daanu teew xam ne lii añ ji ku tedd kay la ko jox incha allahu taala nee na loolu mooy ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba nee na añu ku liggéey nag ak añu ku liggéey nee na Cheikh Abdoulaye Lahad ma waxoon ni nee na boo bëggee xam maanu suñu borom nee na xool ko ci añu ku liggéey ak ku liggéey ku liggéey dama naa añu ceeb yàpp ku liggéey dama naa añu fonde nee na moo tax Serigne Moussa Ka wax ni nee na noobal ba àngaa sa kero xeex ba ba xeex sa geer ba nee na nuru wut ak sii ba kero xeex ba la ilaha illallah nee na nañu liggéey sëñ toog naa ci taalibeem nee na Baay di xëy di dox nee na mu kenn ba noppee mu leen xam ngeen lu ma dugg ci liggéey bi ma liggéeyee saa borom dafa ni ku la liggéey ma jëriñ ko nee na moo tax ma liggéey saa ngir bëgg a jëriñ nee na kooku ku wér di wut yàlla te bëgg ku ko liggéey nee na wàcc rek ku ñor fenn wàcc jot na ci yow ah yow de doy na waar waroo wàcc de ki taxul ñu bind la mun rasulillahi suñu borom daf koo xam ne wax du romb ko tey gaawul yow ba tey lay faatu yow ñëw nga mel ni alal di ko may jëw rek nga nee na yàlla nañ fi teew nag at yu bëree bëri la bëri képp koo xam ne ñëw na fi te nee na ay soxla yàlla na ko yàlla faj ci dara ji sëriñ bi ak ci sëriñ bi koo xam ne ñëw na fi def na ñëwoon ci tawat yàlla na ko yàlla saafara ci dara ji sëriñ bi ak sëriñ bi nee na sëriñ bi ci la lépp nekk nee na baax la boo xamante ni. lu ci waay ji dana sax dana ñor dana ci jëriñ allahumma salli ala sayyidina muhammad allahu min kulli karimin akram